ñu ngi leen di nuyu ak di leen sant ak di leen gërëm ak di leen jot lii nuyoo xalif général des mourides Serigne Sidi Moukhtar ndax dana mbir mi day mbirum Serigne moo tax bu koy def foo ku fi nekkal Serigne Touba moo tax na lii am na ci diggalam tax di leen ko jotali di leen jotali ak cantam ca moom xamal leen ni itam dana leen jot dana leen dana ko jotali seenu liggéey yéen ñi ak seen li ngeen di sàkku comme moom mooy Serigne Touba mu sàkku leen ko bokkee ca mu ni nag lii sëriñ Touba rek a taxoon mu di ko def te ba fii nu toll moom rek la ci moo ko ci bàyyi ba tax na bu sañoon ginnaaw am ngeen ndigal ci moom bay def lii ngeen góorgóorlu ci lu ngeen man def ko ni ko Serigne Touba bëggee Sëñ Tuubaa moom bëgg-bëggam euh, lu leer rek la du ñaar du ñett yàlla ak yonent bi kon bu ngeen jógee di liggéey liggéey boo xam ne bii ngir Sëriñ Tuubaa tax fokk ngeen fab loolee ne ko jàppe ci seen kanam fas yéene moytu lépp loo xam ne lu yàq loolee la xeetu lu mel ne port dafay yàq xeet yu mel ne ngistal da koy yàq xeeti lu mel ne yëfi góor yëpp da koy yàq bu ngeen koy bu ne rek foofu leen jëmi sëñ Tuubaa teg seen kanam saa bu ne ngeen ci liggéey bi nekk ca loolee nee na loolee mooy dem leen di la ba gis lu bokk ci Sëriñ Tuubaa muy def loo xam ne ngir sëñ Touba tax mu wëlbati ko ànd caag moom ñu bokk ci li ca liggéeyal sëriñ la ka cay may ndam mooy wéy ca ndigal la rek la nga sëñ Touba moom danaa defarale bi yëpp defaree ko seeni maam yi yéen yëpp muy la ndigal lu defal mu def bàyyil mu daal bàyyil mu bàyyi ci loolu la sëñ Touba daal moom itam loolu leen ndigal ngeen saxee ca leer na ko de da ngeen dem ba sëñ Tuubaa tàllal leen loxo ngeen jox ko seen loxo mu yóbbu leen ba fa ngeen bëgg waaw loolee nag yàlla ci àgg ak jàmm yàlla leen ci sëñ Tuubaa jàppale ak jàmm nu bokk ci ñun ànd ca tegu ci loxol sëriñ Tuubaa ne la bëgg ku ci àgg rek moom la nga bëggoon lépp am waaw waaw jërëjëf na ma ko waxee sax mu gën a rafet waaye ko man taxuma mën a wax damay juju rek ba ngeen xam la mu ma ma leeral leen loola waaye leen wëri daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak di leen soññi ci loolu loolu bu leen leeral rek ngeen xam loolu te sax ca loola fa tabarakallah loolu laa laa laa noonu naa ci jot laa naa leen ko jotali mu leer leen loolu it la ma cay dolli ci sama waxe bopp xanaa di leen ñaanal ci yu baax ñi nga xam ne nekkoon naa di leen liggéeyal sëñ Tuubaa jàppale leen sa bopp ngeen am ca ndam lu rëy ah, ba la ngeen ca bëgg lépp ngeen am ko ci sëñ Tuubaa may leen xéwal may leen gudd fan ak wér lépp bu ngeen ko amee doyewu leen ko lu liggéeyal sëñ Tuubaa kon nag yàlla ngeen defal doole ndax bari na ci yoo xam ne yu jóge nañu su sori jërëjëf fa ñëw bari ñoo xam ne ñu ngi kër gee waaye lépp ngir ngërëmul sëñ Tuubaa tax loolee nag sëñ gis na ko ah ginnaaw gis na ko nag yàlla leen ko fayal boppam am na pay yàlla ko fayal boppam na ma sëñ bi naa rafet yi waaye ngeen ma rek naa ma daan defloo baykat bu a wax waaw ko daal ba mu gën ngeen saxaal ma ko ba mu gën a leer ba gën a taalibe yi gën a xam li ma yéene woon a wax ñu ma xam ko bu baax waaw ngi sant euh, nga jottali ma sama cant ci bi yëpp nag man saa wàllu bopp it may sant naa la bu baax a baax yow sëñ Xaadim ndax def na taxawaay bu rëy ci man loolu rek yàlla ñu ngi jàpp maa yàlla yàlla mbooloo mi ànd ak yow déggal la ndax bu ñu déggalee rek fu nga leen di jëli mooy fa nga xam ne mooy mooy la ñuy doon kon na leen yàlla yàlla nañu ko yàlla xam naa balaa sëriñ bi di ñaan rek ñu dooleel ko ci tuuti ay kàddu yu ñu santoon. comme ñu koy sant ak léegi tamit yaakaar naa mat na fukki fan muy cant gi mu doon jottali suñu xaadim si la waxoon nañu ko ëpp na fukki fan ci ginnaaw. pour dal sa bu ñu tolloo ci jataay bi bu ko fi fekkee bu ko fi fekkut nañ ko jottali ba mbooloo mépp yëpp ko moom sëriñ bi mu waxoon ne nag cant gi daf ko tàmbalee ci sëriñ am sëtu ci jëmmi boppam ndax ginnaaw boo xamee ne bokk nañu sëriñ moom cant gi moom sëriñ bi daf ko tàmbalee nee na ci sëriñ am sëtu ci jëmmi boppam ndax ginnaaw ba nga xamee ne ñoo bokk Serigne Abdou Lahad bokk Serigne Souhaïbou ci ni ko nit ñëpp xamee fi ko Serigne Amsatou teg moom yëpp na ko te gis na ko Serigne Amsatou jàpp na ko jàpp gu wér di ko nemmi ko nemmi ko gu wér nee na yemu ci sax waaye fu mu toll ay teraanga day jógee ci këram moom Serigne Amsatou di ñëw ci këram moom mii waxtu wu nekk bi nga xamee ne it yàlla dogal na mu war a ñëw fii tam teg ko ci loxoy Serigne Khadim mi nee na it Serigne Khadim def ci taxawaay boo xam ne mbooloo mi ànd ak Serigne Khadim def ci taxawaay boo xam ne sant na ci te bég ci nee na cant koo xam ne daanaka sax ni si ñam surtout yaakaaroon ne noonu la ko mbooloo mi di fonke ak fa mu bëggoon mbooloo mi teg ko fa ci nen mi kooku yëg ci ndigalul suñu xaadim mi romb na ci sax foo xam ne weesu woon na yéene yi sëriñ am surtout loolu nag nee mu di leen ko seedeel te di leen ko santal bu baax a baax a baax yéen ñëpp ngeen xam ne daal nee na sant na leen bu baax ci bi mu fi ñëwee ba léegi gis na taxawaay bi gis na jàpp bi gis na yëg gi gis na nemmiku gis na lépp nee na li ci dolli lii ñu am nii ci moom tey daanaka mën naa ne yombut ndax am ay kàddoom nii sax man koo am ci kanamu mbooloo mu toll nii jombut tey lañ ko mas a am ñun ñi ñëpp bokk nañ ci ñu am saasu am loola te sëriñ am satu dem ci guddi dafa wax suñu xaadim silla mii ne ko mbir mii daal bu fekkee suñ tubaa ngeen ciy wër te suñ tubaa ngeen ci dàkk suñ tubaa ngoogu te ñëw na ba ci seen biir teewadoog yéen ci seen biir muy jëmmam ji moom sëriñ Seexuna loolu la suñu am satu wax suñu xaadim mii biir te loolu nag ñun xam na nañu ci lu bari bu si ñoom sutu waxee lu mel noonu ci moom bi ñun loolu xam nañ ci lu bare bare bari kon nag ñun ñëpp nañu ànd sant ci wëlbati gi yàlla wëlbati ak nekkam fii ci bitim réew fii ci France ba mujj mu nekk di dal ci jaari Dialibatoul gi ngeen taxawu ba toppatoo ba tax jotaay bii mën a am tey ba mu teew fi donte ka waxtu wi mayewu ko wér gi mayewu ko waaye lépp rek mu doon lu mun ta ñàkk leneen li ci dolli ko it sëriñ am sut dafa wax ne mbooloo mi nañuy bàyyi xel kilifa gi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba muy Serigne Sidi Makhtar bëgg na daal liggéey bi ñuy def suñ si di waxtaan ñu ko ciy tudd waxtu wu nekk di ko ci nemmi ko waxtu wu nekk di ko ci fàttali waxtu wu nekk te di ko ci delloo li moom it waxtu wu nekk démb la ko wax sëriñ aboo mi ñu sëriñ aboo jot li ma ko moom mën koo jot li mbooloo mi mbooloo mépp ko xam ne daal lépp sëñ Tuubaa taxoon mu koy def te ba fii mu nekk di wax nii it sëñ Tuubaa ko ci baax sëñ Tuubaa nag bu dee fii ci France moom lañ toogal nii muy sëriñ Cheikhouna mii ci anam yëpp bu dee nag ci yoon wi nee na mooy sëñ Sidil Maxtaar kon nag bëgg na daal di ko di ko dégg bu wér rek ci mbir mi di ko ci dégg ci liggéey bi ci anam yëpp loolu la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jottali xam naa bu ay détail amaatee a yaatu jeneen yéene ji ci suñ seexoonaa mi amoon danañ leen ko gën a jottali ba mu gën a yaatu waaye di leen seedeel rek lu ko fukki fan ci ginnaaw mi ngi seede cant koo xam ne am na ko ci sëñ Xaadim ak mbooloo mi nekk ak yéen ak cant xam ne am na ko ci sëriñ Amsatu ba mu koy wax egg na sax ci ne ma sëriñ Amsatu nag li ma ko gën a sante moy abo mbatte mi muy liggéeyloo li ma gën a bégloo ci àdduna saa su ma abonné ma ngay dem bërepp sangam ndax suñu am sa to moy doxlo nangam wala ma ngay dem bërepp sangam ndax suñu am sa moy mooy liggéey liggéey liggéeyloo nangam ndax dafa japp ne bu liggéeyloo suñu aboo mi moko wara war a bu ko santé moko wara sant bu ko jëflo moko wara jëflo kon nak jëg bi suñu am sa yëg lool wala fi jël suñu am suñu aboo mi def ko muy talibem def ko muy jëwriñam di ko ak diko waxlo neena nee na mu ko suñu ñam sa du ma sa jox rek mbégte mo moko ci gënal te mbégte moom moo ko ci gën a bégal te loola ba mu koy wax suñu boobu mi sax fekkee wu ko mi ngi doog a duggaat ci noppam kon day wane ne rek yàlla kese taxoon mu di ko wax muy mbégum xolam moo xam ne fukki fan ci tey bis bu set rek ngi may seedeel ma jottali leen cofeel googu kon nag ñu ànd santaat yàlla te ñaanal ko nag may soññee nag ñu bañ a waru ci wayam ji bañ a waru ci jàppandi gi ndax faral di def lu ko yomb rek mu jàpp ne bokkut ak li muy wër wala lu ko yomb rek mu jéggi ko di wëri leneen nan ko gën a jàpp bu baax te gën koo jariñoo bu baax ndax mën nañ koo jariñoo te loolu rek moo tax yàlla cërale ñu ko muy nekk fii ak yéen ci bitim réew yàlla indi na ko nag ba ci seen i loxo loolu nag namm na muk yàlla la comme ni ko Sëñ Saliou waxee ab liggéey saa bu ko yàlla bëggee namb dina ko wutal ab bunt ku mel ni Sëñ Cheikhouna mii ci ñun ñi yaroo ci biir dëkk ba yaroo ci agronome te xam ko su yàlla indee tey muy jëflanteeg mbooloo mi loola ñaan bu ndamu mbooloo mooma la ndax am na yàlla lu mu namm rek dana ko wutal ab bunt kon nag nañ bañ a daal gàttañ lu rek ci ci ci ci ci ci ci woyof gi bañ ñoo nax jàppandi gi bañ ñoo nax ubbi gi jëmm ji bañ ñoo nax yaatal ñu gi ci boppam bañ ñoo nax yaatal gi ci xalaatam bañ ñoo nax yaatal gi ci jëflante ak ñu nit bañ ñoo nax loolu daal nañ ci bàyyi xel bu baax te xam ne loolu buñ ko defee danañ ko dajeeg mbirumu sëriñ am sëriñ mi nga xam ne daanaka lépp mooma danañ ci dajeeg ngërëmam moom mii danañ ci dajeeg ngërëmul suñ Sidi Maxtaar mi nga xam ne ku ku ku mbir mu ne dafa amul bunt te mooy buntu sëñ Tuubaa ci kaw suuf te loola yëpp dana daal di dal xel ci bu boobaa tamit danañ ci ak dajeeg sëriñ bi te danañ ci dajeeg ak taw fi xam bu baax a baax xam naa koon dangeen ngeen di daal di tàllal rek mu defal leen ñaan li ci des nag ñu mën a continuer incha allahu taala jërëjëf